mbokki internet yu suivre Sunugal 24 point net ñu leen char bu baax a baax a baax a baax di leen ñaanal jàmm aussi ah, mbokki internet yëpp tey ñu ngi fii ci Parcelles Assainies unité 19 seet si fi koo xamante ne nii xam nañ ko bu baax a baax a baax a baax à travers les réseaux sociaux kooku mooy kaana ñu bàyyi ko rek mu nuyoog waa réew mi soo moo nami moo frère maa ngi lay chair wër jàmbaar ji naka waar mbaa lépp jàmm. siyaar naa leen yéen ñëpp mbokk sénégalais yeeg ñu di seetaan ñëpp si réseaux sociaux yi waa diaspora bi xam rek di leen ndokkeel di leen ñaanal wérgu yaram ak gudd fan ak bépp Sénégal ak bépp Sénégal bu nekk bitim réew. Mm-hmm. waaw ñun moom ñoo ngi nii si jës ñoo ngi nii si see bi. see bi ça veut dire ñoo ngi si mbedd bi daal. Mm-hmm. di fi dox lépp lu fi injustice ak loo xam ne arrangé wul peuple bi ñun ñu ngi fii di leen taxaw jaan jëf waay tey ci tënk rek kan mooy Sokane ak lan moo waral Sokane tur bi Sokane de mooy benn doomu aadama la rek boo xam ne gënul kenn gënu ko xeebul kenn bëggul ku koy xeeb Sokane moom tur boobu mu ngi jógee soo soo bi moom si boppam mooy Franck Sosé la ok benn ancien joueur français bu nekkoon Marseille sama benn grand boo xam ne Xaadim Mbay mu ngi États-Unis moo tuddee woon Frank Sosé. ok waaw moo ma kaana bi nag mooy bi may booy ba léegi man dama gëm affaire kaana affaire américain yankee. Mhm. I wanna be a States mooy je suis fier mhm. d'être un américain xam kaana yi ñooy wax loolu quoi. Mhm, ok léegi boobu moo lawal soo kaana bi soo ak kaana. looloo soo kaana ak mafia bi mooy gag bu may toog. mooy bërëb bu ma bokk mooy fii daal diaspora bi. area bi 19 minutes waaw 19 minutes. loolu waral soo kaan. bu ñëwee ci waa parcelle plus particulièrement ñëpp ah ku ci ne rek soo am naa relation boo xamante ni relation bu particulier lay doon moo xam ne daal lépp nice na est-ce loolu mun ngeen ci ñëwal sa diggante ak ñoom ri tax bi mu ri tax. waaye naan damaa xew loolu moom ama rek doomu aadama moom mënul xew sax parce que kii xew mooy yonent bi salallaahu alayhi wa sallam ki xew mooy yonent bi salallaahu alayhi wa ki waral lépp ak ki mun lépp ak ki nga xam ne mooy la parfait kon ñun dañuy lu rek def lu rafet nag moo tax gars yi di ma xamal rek ñu la bëgg moom day am ñoo xam ne bëgguñu la àdduna moo demee mais ñu bëggul ñoom tam nañ leen ñaan loo xam rek ñu mën a boole ñu booloo mooy benn ñu xool di ñuy guerre mu jóge fi parce que affaire bi loolu la quoi affaire bi moom soo moom yaa ma gën a xam soo moom noonu la mel soo dafa oyof toll. yaatu fépp. waaw nitu mbedd laa du ma si lenn nag. mais am foo xam ne dara laa si parce que boo doonee jullit. gëm yonent bi salallaahu alayhi wa salaam am nga ne lenn nga. doomu aadama yàlla gën fonk loolu laa doon ma ne lenn laa côté boobu quoi. mais feneen itam du ma dara parce que nit moom buñ nee doo dara waroo mer. parce que boo génnee àddina moom mbalit ngay doon. dëgg la soo moom noonu la fa demee. mais yëg nga ne da ngaa nekk ci xolu sénégalais yi. ñëpp la bëgg yow. loolu yëg naa ko mu ah, ne rek yaa ma gën a xam tëgg yi may def ak. jàppale bi may jàppale néew ju doole yi li fi tax baat boobu. Mm-hmm, mm-hmm. waaw loolu moom ragaluma ko man je suis né pauvre. Mm-hmm. waaw j'ai grandi pauvre. maanaam born into pauvreté you know. yu bëri daal safu la daal. waaw yu bëri safu ma. li ma saf mooy dëgg. ak job ak dóor ak xama rek injustice. bëgguma injustice man sama pap Souleymane loolu ma yore yàlla na ko yàlla yërëm. ndeysaan tey ñu ñëw démb ku ne xam na ne Papa Sow daf doon taxawal benn écurie muy jàmbaar wrestling euh, académie fii nii ci Parcelles Assainies unité 19 sa relation ak Papa Sow kenn dootu koy rente ci réew mi mais juge bi mu jugee écurie Fass loolu bi ko soo déggee lan la def ci moom juge bi mu fa jugee. waaw ah, Papa Sow moom rakk la si man. ñun moom Papa Sow rek la si man ñun 19 noonu lañ mel quoi ñun ñun bi ñuy ànd dafa yàgg Papa Sow moom papam papam ak sam pap dafa yàgg depuis Dakar Marine yàgg na quoi depuis Dakar Marine parce que 19 pas yi fi dëgg yëpp presque waa Dakar Marine relation bi fa muy booy bu ndaw ñuy ànd maa ngi moom depuis booy bu ndaw mu nekk sama xama rek sama man loolu yàlla dafa ma ko may booy tuuti dañoo mos a fréquenté may dox si bu ñuy booy affaire combat am kon tey Papa Sow ñun bu ñu doon ànd ñuy dem Fass Fass doon nañ fa dégg lu ne ñuy muñ lu ne lu ne ñuy muñ mm-hmm. mais xam nga lu dul dëgg du yàgg lu dul dëgg du yàgg xam naa dafa nekk lu dul dëgg moo tax mu dañ mm-hmm. instant nag dafa nekk si dëgg dëggam mooy dafa ñëw koñam sa nit amoo lu dul sa saayit sa waa saayit mm-hmm. surtout parcelle parce que nit moom soo nekkee sportif sa première galaaj mooy fi nga dëkk ak fi nga buujoo waaw fi nga dëkk feneen foo dem nee nañ wàllu yaan nga mais bu delluwaatee PA nag dafa nekk loo xam ne luy dëgg la. ak dëgg moom la ñuy ñaan moo njëkk mooy mujj looloo tax mu ñëwaat parcelle ak ay famille ak waa mbokkam. loolu la de. Fass moom amuñu benn ñoom problème. ñoom tam yàlla na leen yàlla jàppal lu ñu def si carrière Papa Sow. xam nga li mu wax ñoom ñëpp ñu ànd mbooloo mooy doole mais ñun moom dañoo ñibbisi. dañoo ñibbisi quoi. dañoo ñibbisi. mais jël bi mu jël Siteu est-ce loolu du risque ci moom. non ndaamali moom ñëpp xam nañ ko. làmb moo demee noonu làmb moom il faut nga daj pour réussir. il faut nga réussir pour mun a am lenn li soo gisee tey moo combat moo Siteu ñu taxaw parce que tam Siteu dafa nekk si yoon xale la xam nga la parce que xale ak mag ñoo mun a mayante chance Papa Sow sax du mag ndaw la xam na ay tolof tolof yi mu nekk la rek moo tax mais tey bu jëlee Siteu tamit yoon la mu jël Siteu pour relancer carrière am yàlla may ko si ndam te bu ñu àndee ñun ñëpp doon benn day am ndam day am ndam te yàlla da koy may ndam si kàddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla na ko yàlla may ndam ci ndam bu sedd guy waaw moo Siteu nag combat boo xam ne ñun ñoo ko jël te bu soobee yàlla daf ñu si may ndam waaw. est-ce que xam nga combat boobu lu koy lan moo koy gagné. combat lu koy gagné mooy entraîner entraîner jox sa bopp contact bu bari bëre bu bari entraîner teg ko si yoon fonk sa fi nga bokk waaw fi surtout loolu moo si ëpp solo fonk fi nga bokk xam ni ngay àndal xam ni ngay nekkal. nit moom boo demee ba xam foo bokk xam fooy teg sa tànk réeroo mais boo demee ba xamatoo foo bokk xamoo fooy teg sa tànk loolu da nga réer combat bi entraîné moo koy laaj tegu si yoon respecté sa bopp respecté ki ngay bëreel àdduna bul xeeb kenn koo xeeb rek koo koy nekk sa musiba ëllëg yaa ma gën a xam këlam. mu taxawal écurie bu bees mu war a jëm combat am ak Siteu première sortie écurie bi su ma juul Papa moom moo koy porte yaa ngi comprendre mai loolu est-ce que est-ce que tamit doon pression ci bon Papa Sow moom ñu ñëpp ñu ko na nañ amul pression yàgg na yàgg na si làmb Papa Sow la yàgg na bëre combat mu ne am na ko Papa Sow sax balaa moo gën a mun a bëre sax ñaan mbër boobu moo ko ëpp supporter si lay gën a mun a wane boppam Papa Sow ay pression ñun ñu pression luy pression mm-hmm. pression boo koy def day mel ni yow moo yàlla ak yonent bi mm-hmm. pression yooyu dafa am si àddina mm-hmm. kon man vidéo yi may def sax kon du mu koy def parce que lu ne maa ngi koy dégg tey laa gën a saf ndaamali tey la gën a saf yaa ma gën a xam waaw soo amoon loo koy moytuloo ci Siteu lan lay doon moytu. waaw sax amul leen lu muy moytu moytu xam mooy lan lépp luy seytaane di def yow nga koy moytu. waaw loolooy moytu jullit loolu la war a moytu lépp luy seytaane di santaane ak di bëgg nga koy moytu mais yow lépp lu suñu borom wax dee koy def. dee koy jëfee àdduna bi moytu mooy lan moytu bi xam mooy lan ñu lay jéem a booleeg borom bi. man loolu laa gëm. yaa trust bi God. Bilib Muhammad sallallahu alayhi ñu ñëw nag ci parcelle. Modou Lo tey doon roi des arènes loolu soo ban satisfaction la ci am ban satisfaction nga ci am bi nga déggee ne Modou Lo roi des arènes. xam nga yéen yéen seen kàddu yéen Modou Lo ngeen wax ñun xarañ la ñuy wax rañ xañ. ok rañ xañ ah, waaw rañ xañ. mooy li mu la wax ñun daa am lu ñu yàlla may moom lu ñu yàlla may moom moom lu ñu yàlla may xam nga li la wax comme man ni mu ko gëmee nii moom da ko gëm am na ñoo xam ne gëmuñu ko woon mais dañoo ñëw mais moom lu ñu yàlla may ñun mooy xamalan mooy dañoo am géej. ñoom géej bu yaatu. ok waaw am PA. we from PA man. parcelle bu ñu boolowee doon benn kenn mënul ni dara. te Modou moom luñ koy xam boobu ndaw la. mu tànk waaw moom PA fii képp ku fi ñëw PA. yàlla da boole booleeg soo parce loolu yàlla moo ma ko may. Ah, du xaalis du dara mais yàlla mooy xool lu ko neex si doomu aadama mu ne ko si rang. man noonu la fa demee man moo loolu yàlla moo ñu boole yàgg na man maag ay magam la woon sax ba moom mu nekk mbocc tey ba maag nekk ak man kon boobu yàlla ko yàlla may ndam wér gu yaram gudd fan ak booy mbëru yëpp xarañ moom mooy loolu xam rek rañ xañ bi yaa ma gën a xam. gis micro nga affaire bi Onde lan moo mooy ça veut foo dem Onde mooy loolu foo dem in the world mooy foo dem si àddina bi dañuy wax Onde Lo moo tax ma ne this is it's not Onde Lo world is law en anglais mooy àddina bi loo la moom tamit mu jëm ci combat ak Ama Baldé muy daje xale tamit boo amoon rek message boo koy lancé ci combat boobu la lay doon. ah mooy li may wax kan fan lay Baldé. ñun ñooy ñan. yéenay onloo. ñooy onloo jeex na tàkk. rakk la rek si ñun te rakk lay doon bay laa muy diini Ama Baldé. place lay nekk ñu teg ko place am rek rak lay doon si ñun ba ilaa yow mi di nii mais Modou moom Modou moom xarañ bi ñëpp a xam xarañ bi moom yaa ma gën a xam bu ko génnee rek caaf xam waaw emballé moom xama rek nañ koy ñaanal yeneen ndam mais ndam bi dañ naxaar tuuti rek